fii la ma yàlla jaarale ma ñëw ci àdduna te maa ngi fàttaliku ba may jox ay dërëm ay ñaari dërëm booba xam na ne damaa bëgg daw jànge moomu ñëw rek mu jox ma ma denc boobu musuma wax nag ne ndax da ngay dem musuma koo laaj waaye ci fukki at yaag benn ak ñaar ci laa dem ba suma bàyyi gaañu ma toll ci fukki at dara mooy ki fi nekkul te gën a teew moom mile sa su ne ay fan rekk bu desee ci weeru koor. maam bu Ndiaye mi wuy juram mag ñëpp nee nañu ba Cheikh Ibra ganee jamono dane na ma ñëpp wuyu si teew mu ne andi naa mbër ci làmb ji xaw ma nag fu muy bàkkoo. naam ci jamonoy mbas la dëddu waaye nag terewul mbooloo mu takkoo takku moo ko gunge ca këru dëggam foofule ca Touba lu ni mel rek ngir fësal tolluwaay bi nga xamante ni. moom la jëmm ju màgg ji daal di am quartier général di wéy di jooy Mariane Siva Diop taskatu xibaar boo xam ni daawul sonn ngir liggéeyam tege ci yoon lu ngeen ci xamul pour la plupart de ces émissions Marianne moo ko doon produire boppam c'est-à-dire mooy fay caméra euh, mooy fay euh, monteur am mooy fay léppam dem tourner ñoo jox tele bi mu diffuser télé bi fay ko mu teg télé bi ñàkk koo fay mu teg sponsor yi am jox ko xaalis mu mu liggéey ñu ñàkk koo jox xaalis mu liggéey waa télé bi xam nañu bu baax li may wax keneen ku àdduna dul fàtte rawatina télévision Futur Média di Adja Degen Chimère Diallo Babou programme bi mooy suñu yéexee. Mm-hmm. damay bàyyi ba vendredi prochain de. ah bon. ah fu mu <laughs> ah. fukki fan ak ñett ci weeru octobre atum 2016 la àppam yemoon moom mi ñëpp daan woowee yaay dem bàyyi njabootu deretam waaye nag njaboot gi mu bokkaloon liggéey ci naqar bu kenn xamul kañ lay deñ ay nit yuy faatu. bés bu jot ñu teg ci gët waaye nag 2020 dafa bokk ci at yi nga xam ni Sénégal dootu ko gaaw a fàtte ndax li mu ci ñàkk ci nit ñu baax ak ñu màgg ñoo takk lool ñu bari ci ñoom sax mbas mi yóbbu leen mbokk yi mu ngoog ñoom ñëpp euh, seen euh, daanaka image dafa collé ak euh, weeru koor collé ak quartier général collé itam ak jotaay bi li nga xamee ni moom lañ leen di proposé ci télévision Futur Média Ahmed Yan Thiam yàlla yàlla yokk leeram sunu waajur boobule ñu ngi xalaat njabootam démb bi ñuy laam-laame weer bi feeñ na ak feeñul xel yëpp Euh, demoon ci moom euh, donc tey mënuñu ko woon bañ a euh, ñàkk bañ a rendre hommage ci télévision Futur Média Marianne Siva mi nga xam ne ñoo bokkoon jotaay bile Adja Degen Chimère ak Baye Ndiaga Diop xanaa profité ci rek jaal ki nga xam ne ni mooy Gana Messere waaye juróom bi génn àddina loolu itam mënuñu ko woon bañ a boole tey ci ubbite bi ci télévision Futur Média Sophie bu ca kanamee yaa ñuy toggal xëdd sànq jotuñoo nuyoo romb naa la rek ndax takkagoo woon sa micro. mais tey comme c'est une première defe naa lépp mën nañ ko tolérer ba à partir de demain nag. Mhm. ñu doog a teg lépp ci yoon. maa ngi lay ziar di la déwénatil Sophie. maa ngi lay delloo ziar Baye Cheikh di la déwénati yow tamit di la jaajëfal rek euh, contentement rek ak mbégte la ñuy am saa su ne di bokk ak euh, yéen ñi plateau bi di jàkkaarloog tamit mbokk yi xarit bi ñu seetaan comme ni ñu koy defee nag chaque année teew fii di leen euh, andil ay ndogu ay xëdd yoo xamante ni dina leen mën a accompagner seen kër ak suñuy partenaires yu ñu àndal xam nga ni nag Baye saa su ne damay am ñu may accompagner fii ci sama biir waañ comme ni ñu koy defee chaque année rek euh, di rek euh, baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq bàyyi Cheikh

ak say salé yoo xamante ne di ko mën a ndogoo comme ni nga ko mën xëddee ñu àndi aussi ak euh, waa kireen kireen moom xam nga ni soo dogee ba pare rek li ngay njëkk a utiliser rek mooy ndox parce que ndox da nga koy soxla da ngay toog toute la journée euh, doo euh, lekk dara laaj na nag soo